asalaamualeykum Afrique lii nga xamante ne mooy solo bi tey di waxtaan bu nga xamante ne waxtaanu mbokk ak mbokk la Sénégal jàmm rek moo fi xaj moo tax mag ñi waxoon ne lu dul jàmm jàmm ak gën comme nag lu dul jàmm jàmm ak gën fokk ñuy waxtaan suma papa waxoon ma ci fan yi mu yu mu mujj ci senegaal ne ma yuusu ma ne ko waaw mu ne ma bariwu leen bariwu leen su fekkent ne yàlla dafa def ngeen daje bu kenn yàkkamti ndax nii ngeen tollu bariwul te bu ngeen tasaaroo nu blessé leen ngoon bu nu jëmee ci senegaal xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk nii fi mag ñu tooga woon rek nanu tooga noonu mu la wenn toogin ba nu demee guni yi ñëw seetal yàlla ni mu jële doom pikiir baay pikiir yaay pour que pour que ñu ñu euh, ñoom seen bopp seen yéene nekk si sama doom ji yàlla naa ko fi bàyyi seetal ni yàlla defare ba nga xamante ne waxuma sax sa baay ak sa yaay yéene pour dem barsax bàyyi la fi waaye ñoom seen bopp seen xalaat seetal pikiir bu réy boobu yàlla moo def loolu ci lii nga xamante ne moo am nag mooy kenn ku ci nekk ci nun bëgg a jàmm bëgg a jàmm yéene ko sa moroom naam tribunal am na naam république am na waaye naam république dañ koy jekkal jekkal ko mooy nanu téyante ñoko jekkal ko mooy ku gisul sa moroom nanga ko nam ma ñu am nag nun wakaam benn nit bu nga xamante ne dafa manqué ci dëkk bi benn nit boo xamante ne kenn ku ci nekk su gëj na ko gis benn nit boo xamante ne kenn ku ci nekk su nun war na xam ne kii kat mu ngi ci kaso bi lu ko fa yóbbu parce man jaraaf ku ma xam-xam ne damay def enquête waxuñu ma rek ma jóg ne noon damay def déclaration ñaan pour que lii am mais su ngeen gisee ma def déclaration bii wër naa wër a wër ba xam ne tubéy liñ ko bëgg a def chef de gang du loolu waxoon naa ne tubéy am na loo xamante ne mooy nekkinam fi ñun gisuñu loolu si moom buñ ko gisoon tam dara duñu tere wax ne tubayee def drogue bi tubay ko fi dugal xawmul tax mu ko fi wow, moo ñàkk fula ko fi nañ waaw domba euh, dëgg dafa yomba wax mais fi mu toll nii ñu daan man jaraaf ma daan toog naan ah ñoom responsable yooyu day ñoma gëna xam parce que responsable information da kay fekk si waaye euh, euh, responsable un bon responsable information du euh, du fekk ji information départ bi day tubay la accuser man mi di wax sax ba ma déggee ne tubay la ma ne waaw tubay la ko war a dugal si loolu ñu ne nii ma daal di toog jàpp suma njàmbur waaye bi ma demee ba si biir ma ne noo jàpp suma du yoon responsable la ko am problème si réew mi ba si guddi googu naan mu nga dem sa France eh, xamunu fa mu nekk président la war pour que mu bës ay instrument ñu wëri xale bi seet xale bi joxaat ka ndeyam ak pour bañ na xaru Sénégal man je suis le président de la république locale de Wakam et je suis maintenant le président de la république locale de la presqu'île du Cavern. Yala kadef, du fi xamoon fi laa jëm mais bi ma demee si àdduna ba si biir xam naa fi ma jëm pour jël nag samay responsabilité tubay dan ko jàppoon douanier ba dañ ko jàppoon tubaab ya dan leen jàppoon ñu bàyyi yoon mu mu di xool ban demee ba sa biir yoon bàyyi na tubaab ya ñu ñibbi ban demee ba sa biir yoon bàyyi na douanier ba bàyyi na ñeneen ñi et pourtant douanier ba dafa wax ne tubay la xam xamul ñeneen ñi effectivement dëgg la wax dëgg la wax par rapport ak man li ma dégg tubay dañ ko demandé na ko ay dañ am fi matériel matériel bi fi yor dañu bëgg